kon bismillah mu ne xasida gi mi ngi nii sëriñ bi da koo tëggee arafi rahman rahim rahim moom moom siiw na loolu xasida gi bari na ñu ko gis ci xasida yi ñu mun ko lu bari bari ak ko jàng lu bari bari xasida gi mi ngi nii tàmbalee rabbi sama borom dey xadd fajaa bette na dimaa ci loo xam ne yasraaw dana ubbi al azhaana xel ya bi jaahi afdali man ci darajay ngën ji koo xamante ni xat la jaa wéeru na lillaahi jëm ci yàlla sëriñ bi dafa tàmbali ne suñu borom dey dama bette luy ubbi xel luy tax xel dal du jaaxle du tiit ta mi ngi ko defee ci daraja yi ki gën ci ñi mu sàkk hamdi sama cant li rabbi yi ñel na ab buur karimin bi di aji tedd la sarika déet génn aji bokkaale lëxoo di ko wa malaanta feesal na sadriya sama dënn al yow ma tey jii nuuran ci ak leer saate an ci di aji jolli mu ne yàlla de moo yeyoo ma sant ko cant goo xam ne lu ma sant sant rek du ma matal mu ne tey jii dama bette ak ubbil ma sama dënn bi sol ko ba mu fees dell ak leer guy jolli muhammadun muhammad muhammad salawaatullahi teralu yàlla alayhi yàlla doole nekk ci moom ci abadin ci faw fi xisbihi ci biir kuréelam ba kalaa wattoona kulli sama lépp bihi ci moom mu ne yàlla dey mënuma koo sant ba matal ndax dafa sam sama lepp ci daraja yenente bi yenente bi nak yàlla nako ko yàlla dolli teraanga ak jam mbokk kuréelam boobu moo adon dana ñaan ilaahi sama buur bi allazi bi nga xam ne am mat matale na mawaaxibuhu mayam yax li jumlatil xalqi ñeel mbooleem mbindeef yi maa la nga xam ne yaxtaaru dana ko tànn man ka nga xam ne bara a bind na maanaam sof na mbindeef mu ne sëriñ bi ne maa ngi ñaan sama borom mi nga xamante ni maye ngi dafa daj kàpp àgg ci mboolem mbindeef yi maa ngi koy ñaan mu doole àggale ci man lépp lu ma tànnal doolee àggale ci mboolem mbindeef la mu leen tànnal muy yërmandey àdduna muy yërmandey àllaaxira mu ne moo xam ñi gëm tey topp la moo xam ñi weddi kay mooy la bu dee ci àdduna daal moom kenn ku nekk rek mi ngi ñaan yàlla defal ko fi yërmande bu dee ci àllaaxira nag moom yërmande àllaaxira ka gëm rek lañ ko mën a ñaanal naajeytuhu diinaan diiyaale na maag moom jàlla màgg na aawaa man ay at wa karamani tamu teral ma takrima hëdin teralu aji jubal wa kulli te sama lépp bari a set na wicc min lëxan cig neen mu ne dama diwaane samay borom ay ati at mu teral ma teral goo xam ne moom rek moo ko mën a terale mu àgg ci sama dara dara neenut sama dara dara du jege ak nen raxmaanu yow aji xéewali xéewal yu di ji xëbli yàlla nanga nga may li jamiil xalqi ñeel moo di mbindeeti raxmata man yërmande ka nga xam ne yoxo nii dana doyloo wala dana fegal ani charri walis ay man ka nga xam ne xaraa jàng na quraanuhu quraanam ji mu ne suñu borom yow mi nga xam ne sa yërmande àdduna da nga koy defal ñëpp defal lay weddee kay mooy sax ci lañu bu ñu ci àdduna maa ngi lay dollee ñaan kon yërmande jooju nga dollee ko mbooleem sa mbindee fi fii ci àdduna yow nga xam ne kuy jàng sa alquran te di ko jëfe yaa koy fegal ba ay du ko jege mu ne xottu yàlla na nga peeg mooy yàlla na nga wattu ummatal Moustapha xeet wi ñu tànn an kulli mafsadatin walif bépp yàq-yàqu wa tarxam te yàlla na nga yërëm ak xalqa mboolem yi yaaman yow mi nga xam ne padaxa sos na jadduhu seen maam mu ne maa ngi lay ñaan xeetu yonent bi yépp nga aar leen ba luy nuru ab yàqu-yàqu bañ leen a jege mu ne mbindeef yëpp itam tam gëm ak ñi weddi bi dee ci àdduna rek moom ñoom ñëpp maase leen yërëm dolli leen sa yërmande yaa maalikal mulki yow aji moom nguur yaa man yow mi nga xam ne jàlla màgg na mooy jommante naag an awadin walis fayantoo irham yàlla na nga yërëm jami'an wara mboolem mbindeef yi ya hadi yow ya ya ya aji jubal rada ko jinna moy fek mu ne yàlla yow nga xam ci deug deug yow rek yaay bur tey yow ngay ko xamanteni uppante nga di fayal tok tay jam mune ne maa ngi lay delloo ñaan mboolem mbindee fi ci aduna nga dolli leen mande ñoom ñëpp ñu lay weddi ak ñu lay mooy mu ne maa ngi ñaan nga dolli ñëpp yërmande yërmande adduna ji nga xam ne jagleeloo ko rek ñii gëm a koy topp waaye da nga cee boole ñii weddee koy may yërmande jooju maa ngi ñaan nga dolli ko ñëpp ñëpp. ma xawta far nga koo xam ne xat la jaxoo wéeru na lillaahi jëm ci mu ne dafa mel ni moom ci boppam moo ko xam ndax dane fii suñu boroom lu xol bi dëgmaloon ci lor far nga ko mu ne loolu neexut a xam lu mu doon waaye nee na suñu boroom li xol bi dëgmaloon ci lor far nga ko ba mu set ci darajay ki nga xam ni moo gën ci képp kuy làqu ci law ci yow te mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon nag mbokk yi képp ku seetaan vidéo bi na nga ñaanal sëriñ Abdourahmane Mbacke bu Daaru Muxti mu yàgg fi lool te ànd ak doon firil téere bi nga xam ne mooy rab bi di sëriñ Gora Ndiaye mi nga xam ne taalibi sëriñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti la.